بسم الله الرحمن الرحيم barkeb borom Touba bismil qadim yëglu naa ci néegu soññi kuñ fi naa ab dëddu maan baa ñuñ fi naa ahlul qasida ngir qadim bismil qadim yëglu naa ci néegu soññi kuñ fi naa ab dëddu maan baa ñuñ fi naa ahlul qasida ngir qadim kon sàkku naa fa yokku ne ci biir ta dégg man mani bismil qadim fu mu fi ne ta teewlu wax ji ngir qadim soññee bi gaa yi weesuwul bennoo gi war ñu koy fésal ak dëggu njëkk ñuy fésal bennoo yi ngir kàddoon xadiim na ñuy juboo ci saasu ne na ñuy bëggante saasu ne bu ñuy meroo mukkuku ne na nga moroom ma ngir xadiim na ñuy juboo ci saasu ne na ñuy bëggante saasu ne bu ñuy meroo mukkuku ne na moroom ma ngir xadiim képp ci ñun daa war a def kemam ni boppam bum ko def ni kum xamul bu kenn def lu metti kenn ngir xadiim bu ñuy defante jëf yu ñaaw bu ñuy waxante wax ju ñaaw ci sun kanam mbaa sun ginnaaw ngir loolu neexul kay xadim lu ñuy waxante nay rafet jëflante yépp nay rafet lu ñuy jëwante nay rafet ngir jëmmi Ahmad al Xadim lu ñuy waxante nay rafet jëflante yépp nay rafet lu ñuy jëwante nay rafet ngir jëmmi Ahmad al Xadim yaa rabbi yajalil muridina maha nan ko firi buñ ko gisul nan ko yëri biir mi nanul baaxil xadim yaa rabbi yaj'alil muridiina maha nan ko firi bun ko gisul nan ko yëri mbir mi nanul baaxil xadim waa ji ko gis te di murid warul di dencal ab murid ci ab xolam lu dul wi daat ta moo di sopp ngir xadim ba bamba naan yaa rabbi ñun ahlul xasida ñoo taxoon kon nan yaatal lu nu man ci sun diggante ngir khadim ba ya rabbi ñun ahlul qasida ñoo taxon kon nan yaatal lu nu man ci sun diggante ngir khadim serign bi moom waxam du deñ te mu wax ci ñun la feñ luy nuru rero nañ ko bañ ngir ahmad al qadim ngir mom di ab diggam du moy kon lim ñu dig waaju mu moy mo wacc yon ni du ko moy ku jub dajeeg mayi xadim yon waa di sax ci ndigalam deggal ci bàyyi ak bañam waaju ci aw ak yu neex ya ko fi moom yoon waa di sax ci ndigalam dëggal ci bàyyi ak bañam waaju ci aw dajëg diggam yu neex yu bàyyi koo fi moom taxawlu naa ci sama way lisaanu xaal mi wax ma way mooy ki ma tëj loo wile way tëj naa ko kon di ñaan xadim mu mooy murid yi wépp may wow dana tee ñu di ko mooy jéggal ñu lépp luñ ko mooy ngir waaja doon fi moom xadim mu mooy murid yi wépp may wow dana tee ñu di ko may mooy jéggal ñu lépp luñ ko mooy ngir waaja doon fi moom tibbal ñu ASG production